misaal la ci jamonoy tey dafay wone ne sarax yi ak saraxi malaay yi ñu daan jagleel yàlla mënuñoo dalal xelu jaamukatu yàlla bi sarax yooyu ñu ngi jëmoon ci lekk ak ci naan ak ci fànn yu bari ci mbirum sangu set ay sàrt yu jëme ci yaram lañu yu ñu waroon a farataal ba kere jamono ji yàllaay tëral kóllëre gu bees waaye kirist ñëw na